abonné leen ci seen youtube bi di yaatal xeltu yin te cloche de notification bi ngir lu wàccati bees ngir man di ko jot ca tàng-tàng ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحبه ومن والاه mbokk yi bàyyi xel chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bañu ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi am mbégte di fas yéene ànd ak yéen ci waxtaane tem boo xam ne yaakaar nañ ne dina wara soxal ñu baree baree bari ci sang yu tedd yi mbokk tem bi day laal ci maandu ndax ku tudd maandu rekk xel yépp war a daj ne ki bëgg a ki bëgg a fàwwu muy moytu di dugg ci lu yoonam nekkul waaw kon daw dugg lu suñ yoon nekkul lan la ci islaam wax waaw loolu lañu fa yéene waxtaane defe naa jàng nañ ci alquran yàlla ne وقل لعبادي يقول التي هي أحسن yàlla nee na yàlla moo wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waxal ak umma bi muy xeetu lislaam mooy jullit ñi nee leen su fekkee bëgg nañoo maandu nañu yar seen làmmiñ ba bala ñu ci yëkkati genn kàddu nañu ko natt ba yëg ne kàddu gi bu génnee rafet bu génnee rafeta dégg bu génnee rafeta nettali bu génnee itam bu dee lu ñuy jëfe sax day rafet a jëf bu ñu ko nattee ci nattuwaayu yu rafet yi rekk ba yëg ne bu génnee nekk kàddu gu rafet ñu soog koo génne waaye suñ ko nattee ci nattuwaayu yu rafet yi ba yëg ne su génnee du neex a dégg wala du neex a wala du neex a jëfe ñu dencaat waaw yonent bi sallallahu alayhi wa ne min xusni islaamil mar'i tarkuhu ma la yaanihi waaw nee bokk na ci liy mottali lislaamuk jullit bi bokk na ci li rafetal njulliteg waa ji mu moytoo dugg lu yoonam nekkul waaw man julit la jullit la ah diw ku lislaame la diw daal ak jullite yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaw yéen ngi wax rek ku ne naan maa jullite ku di seedeel moroomam ak njullite waaye daal na ngeen fexe ba lu wax ji bari bari ak njullite dee ko natt ci baromètre bi ma teg ne ci lañuy natte ak njullitee te man sallallahu alayhi wa sallam baromètre bi ma teg ne bi ma teg tëral ko ne ci lañuy natte ak njullitee mooy bañ a dugg ci lu sa yoon nekkul nga xam ne képp ku ñuy seedeel naan ak a jullite wala ak a lislaame ngeen gis ne day dugg ci lu yoonam nekkul benn day gëstu lu yoonam nekkul wala muy dugg ci lu yoonam nekkul wala muy wax lu yoonam nekkul kooku ak ku ko mën a seedeel ak njulite wala ak lislaame kooka day wax lu ko neex wala muy wax lum xamut jeex na waaye man mi yàlla yónni daal li ma leen di wax mooy lislaam ju rafet faw boroom di moytoo dugg ci lu yoonam nekkul lislaam ju rafet faw boroom maandu ci lu yoonam nekkul min xusni islaamil mar'i tarkuhu ma la yaanihi yéen a ngi seedeel nit ñi lislaam rek kenn ku ne di ko seedeel ka ko neex waaw waaye man daal man la yàlla yónni te maa leen gën a xam lislaam ju rafet nu ñu koy nu ñu koy qualifié waaw lislaam ju rafet ah maa leen gën a xam lan moo koy déterminer waaye daal su ngeen bëggee jàng islaam ju rafet ci man mi la yàlla yónni man daal li ma leen xamal ne mooy déterminer islaam ju rafet mooy maandu ci lu sa nekkul waaw kon nag nit su maanduwul ci lu yoonam nekkul ñu naan ak a jullite ndax colinam ak a jullite ndax waxiinam ak a jullite ndax poosam bu diis ak a jullite ndax otoom bu rafet wala këram gu rafet da ngeen di wax lu leen neex rek waxi yaama neex la waaw léeg-léeg nga gis koo xam ne danaan diw ak yiw ak a jullite te fekk day sol lu gudd rek wala lu yaatu wala muy kaalawu wala muy sol mbaxana wala muy yor kurus waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na lislaam ju rafet day man xooluma ko ci kaala kase wala kurusu kase wala yére yu gudd kase wala oto bu rafet wala kër gu rafet li feek boroom maanduwul ci lu yoonam nekkul moo tax ulama yi muy boroom xam-xam yi am na ci ñoo xam ne dañu gis ne xadiis bii mooy ceerub xam-xam nee nañ ceerub xam-xam muy xam-xam soo ko xaajoon ñetti xaaj benn xaaj ba nee mu ngi ci xadis bi islaam jàngale na ko muy lan maandu ci lu sa yoon nekkul am yeneen boroom xam-xam yoo xam ne dañ ne xadiis bi mooy kaaru xam-xam mooy rubuul ilm wala rubuul islaam am na ñu ne mooy kaaru xam-xam am ñu ne mooy kaaru lislaam muy lam ñu ne mooy kaaru xam-xam dañoo bëgg a wax ne xam-xam soo ko xaajoon ñeenti xaaj benn xaaj ba mi ngi ci xadiis bi muy maandu ci lu sa yoon nekkul am ñu ne islaam soo xaajoon ñeenti xaaj benn xaaj ba mi ngi ci xadis bi muy maandu ci lu sa yoon nekkul waaw moo tax Abdullah ibnu Abi Zayd nee na eh, jimaacu aadaabil xayri yatafarracu min arbaati axaadiisa wa dakara minha qawluhu wala qawlahu min xusni islaami almar'i tarkuhu maa laa yaaniih waaw eh, boroom xam-xam bu mag bi muy abdullah ibnu abi zayd nee na mbooleem teggin yu yiw yi génnul ñeenti xadis waaw ñeenti xadis yi nag du ñu tudd yépp waaye nañu jël rekk benn ci ñeenti xadis yi muy bi soxal suñu waxtaanu tey bi bi méngoo ak contexte beeg temu tey bi te mooy balaa nit kee am diine ju rafet faw mu maandu ci lu yoonam nekkul waaw waaye nit ki daal suñ koy seedeel diine ju rafet te fu mu toll ma ngay wax lu yoonam nekkul ma ngay déglu yoonam nekkul ma ngay dem fu yoonam nekkul ma ngay dugg ci lu yoonam nekkul ña ko seedeel islaam ju rafet wala moo am diine dañuy wax lu leen neex wala ñuy wax luñ xamut wala ñuy wax luñ gëmut jeex na waaw moo tax xadis bi muy min xusni islaamil mar'i tarkuhu ma la yaani dafay tere jullit bi muy jéema gëstu yoonam nekkul muy jéem a dugg ci lu yoonam nekkul wala muy wax lu yoonam nekkul xadis bi dañuy wax ne islaam bala moo mat muy ak njullite bala moo mat faw nit ki di moytoo dugg ci loo xam ne concerné ko nit ki faw muy moytu di dugg ci loo xam ne wu ko muy loo xam ne yoonam nekku ca waaw lu yoon lu yoonam nekkul nag bu bu ko bëggee moytu faaw mu moytoo ko làmmiñ moytoo ko cër moytoo ko organe moytoo ko xalaat muy doo wax lu sa yoon nekkul doo def lu sa yoon nekkul doo xool lu sa yoon nekkul doo xalaat lu sa yoon nekkul danga koy moytoo làmmiñ moytoo ko cër moytoo ko organe surtout surtout organe bi nga xam ne mooy gis waaye moytoo ko xel mooy tooko làmmiñ moytoo ko moytoo ko euh, cër moytoo ko bët may moytoo ko xel muy lan moytoo ko làmmiñ maanaam nit ni muy moytool ni muy moytoo lu yoonam nekkul ci làmmiñam ni muy maandoo ci yoonam nekkul ci làmmiñam mooy bu mu ko wax ni muy màndoo ci lu yoonam nekkul ci ay cëram mooy bu mu ko def bu mu def lu yoonam nekkul bu mu ca dugg ni muy maandoo wala muy bàyyi lu yoonam nekkul ci bëtam mooy bum ko xool ni muy moytoo lu yoonam nekkul ci xalaatam mooy ci wala ci xelam mooy bum ko xalaat jeex na waaw te dëgg-dëgg nag lépp loo xam ne amalu la ci sa dund amalu la intérêt ci sa àdduna amalula la intérêt ci sa diine sa yoon nekkul ca nit da ngay dugg ci loo xam ne résultat ba mu lay jural day am njariñ ci sa diine wala mu am njariñ ci sa dund luy tax nga am loo lekk walla loo naan walla loo sol wala foo dëkk wala loo fajoo wala ndox wala courant wala daal loo xam ne intérêt bi day dellu ci yow wala sa njaboot wala société bi yépp kooku kay gëstu ko dara nekku ca luy tax nga mën a julli wala nga mën a woor wala nga mën a saraxe wala nga mën a aj màkka wala nga mën a jàng alquran wala nga mën a jokk mbokk mbir yu baax yooyu gëstu lu la cay yokk dara nekku ca waaye loo xam ne du yokk sa diine du yokk ci sa liggéeyu àdduna dara du la may ngërëmul borom bi dëgg-dëgg loolu moom di ko gëstu am jot la rek moo tax ku ñu wax ibnu rajab ne wa aktharu yu yuraadu bi tarki ma la yaani xifdu lisaani min lagwil kalaam waaw ibnu rajab boroom xam-xam la nee na daal suñu waxee ne nit dafay bàyyi lu yoonam nekkul suñu waxee ne nit day maandu ci lu yoonam nekkul lool li muy tekki li muy signifier mooy fawu sa làmmiñ wi nga tëj ko sàmm ko garde ko ba doo ci wax waxu caaxaan waaw képp ku tere sa làmmiñ waxu caaxaan des paroles insensées des paroles vides de sens des paroles insignifiantes muy kàddi kàddu yi naq sa xandang kàddu yu amul njariñ képp ku ko daw rekk yaa ngi commencé maandu ci lu sa yoon nekkul waaye lama waxoon jamono ne jotaayu tey yii grand place yi ëtt yi buntu kër yi sooy fréquenté jotaayu nit ñi ngir waa jotaay ba safoo la faaw nga doon ku mën a wax lu dul dëgg wala ku mën a wax loo gëmul wala ku mën a wax mbiri jàmbur di dugg ci vie privée nit ñi waaw waaye su fekkee da toog ak nit ñi luñ la laaj nga ne ah man de leeruma wala man de xawma ci dara wala buñ ne diw de ab sàcc la dégg naa diw de këram gi dafa triandé diw de dafa këpp kees nga ne ah man de loolu léeruma dañu commencé naan dafa seytaane di dañuy jaxaseeg yàlla di dafa soxor di dañuy wane ne moo fi gën a daa maandu di te moom moo fi gën a maandoo di nag te itam kii cherche trouve nit lu mu jéem a jéem a jéem a maandu ah na taseeg ku bëgg mu maandu rek waaye nit ñi ñoom duñ la seedeel ci li nga doon wala li nga def waaye dañ lay seedeel ci li nga bëgg li ñu bëgg nga doon wala li leen arrangé nga doon ko su fekkee nga doon ku maandu moo leen arrangé nañuy lijjante ba solal la mbubbum ku maandu ak ñu ciy xereñ ah nit ñi laa ilaha illallah duñ la jàppee ku maandu fekk da ngay góorgóorlu ci jëfi ku maandu de déedéet duñ la jàppe ku maandoo di ku fekk da jëf-jëfi ku maandoo di ku déedéet nit ñi daal bala ñu laa jàppe ku maandu day fekk rek yow nga doon ku maandu arrangé leen su boobaa moom nañuy lijjantee ba solal la mbubbum ku maandu ak ci xarañ waaye su fekkee nga maandoo di ko moo leen arrangé loo maandu maandu boo doon maandu bay woor bés bu set nañuy fexe ba solal la yérey ko maandoo dikku akaleen na yomb boo maandu woon bay muuma gumba tax lu sax ñoom bala ñu ne danga maandu rek ñu fekk dañ la yéene dañ la yéene nga doon ko maandu waaw moo tax itam tabaarakallaahu soo xamee nit ñee ki seeni façon rek da ngay seedeel sa lépp yàlla nit ñi nag luñ jàpp rek nga ne lool la waaw kon walladina hum anil laxwi mu'ridun yàlla bëgg gu mu bëgg maandu yomb moo tax mu bëgg sax ñu téye suñu làmmiñ ba di ci daw di ci génne waxu caaxaan di ci moytoo génne waxu caaxaan yàlla ñu ci soñu nee làmmiñ yi na ngeen ma ko sàmmal ba du ba bu leen ci wax waxu caaxaan kon mbokk yi euh, nit ki saa yu commencé dugg ci lu yoonam nekkul waxuma nekkatul jullit wala amatul islaam waaye islaamam day bu doon yére la ma ngay commencé xotteeku wala ma ngay commencé cëkk wala ma ngay commencé froissé wala ma ngay commencé tilim te fa muy mujjeeg boroom nag mooy yére ya ñu sànni ko ca mbalit ma rek yére buy xotteeku te ñëwaatuñ ko muy tilim te duñu fóot muy froissé te duñu paase fan lay mujje ca mbalit ma rekk moo tax diine juy wàññeeku te jéemu ñoo diagnostiqué la koy wàññi ñu indi ci médicament bu efficace ngir faj ko bu yàggee moom mbaa diine dina fa amati question la nag mbokk kon bokk na ci conséquences yi ñàkk a ci lu suñu yoon nekkul di jur mooy dina waral xol bu wow xol bu wow diw ak bon xol fekk lan dafa tàmm dugg ci lu yoonam nekkul ba mu jural ko xol bu bon muy benn dana indi yaram wu fragile dafay fragiliser santé nit ki ah waaye dafay dafay tëj nit ki dafay um nit ki ba ay wërsëgam di gën a wàññeeku ah day bonal xol di wowal yaram di wàññi wërsëk moo tax Malik ibnu Dinaar ne Malik ibnu Dinaar moo wax kàddu gi lu mat a bàyyi xel la mu ne ida ra'ayta qasawatan fi qalbik wa wahnan fi badanik wa xirmaanan fi rizqik fa'lam bi annaka takallamta bima la ya'nik ah malik ibnu dinaar nee na boo tegee seetu sa kanam nga taxaw jàkkaarloog seetu ba gis sa yaxu faar yi commencé génn loolu màndargam jeexaay la ah wala nga commencé di sa xol bi xat wala nga commencé boo ubbee sa butik di jaay danga nga xëy ba ngoon doo am sax vingt mille yu mat te bu njëkk boo masaana wàcc gàtt gàtt da nga daan wàccaale deux cent mille wala lu ko ëpp xamal ne yow moom maanduwoo ci lu sa yoon nekkul hmm? Malik ibnu Dinaar moo ko wax ida raayta qosaawatan fi qalbik wa wahnan fi badanik wa xirmaanan fi rizqik mu ne su fekkee danga xool sa bopp yëg ci yow yëg ci sa bopp ñetti changement yii boo boo boo càmbaree sa bopp yëkki sa bopp ñetti changement ñetti soppeeku muy bu njëkk saxool xol da daan féex waaye léegi saxool day xat sa day tàng nga yomba mer bu njëkk danga amoon yaram waaye boo xoolee seetu yaa ngi gis ne sa yaxu faar yaa ngi génn nga jeex tàkk bu njëkk danga daan xëy di gañe cinq cent mille ah wala deux cent mille bu journée bi neexul léegi nag vingt mille da lay të yaa ngi commencé umu nee na dara waralu ko lu dul da ngaa ñeme da nga ñeme dugg ci ci lu sa yoon nekkul faalam bi annaka takallamta bi ma laa yaaniik waaw nee na lala lala yóbbe xol buy xat ak yaram wu jeex ak wërsëg wu wu tëju nee mooy dangaa wax dangaa wax lu sa yoon nekkul moo tax kon ku bëgg sa xol féex sa yaram naat sa wërsëg yaatu sa làmmiñ dee ci moytu di wax lu sa yoon nekkul wax lu sa yoon nekkul day day day day day tàngal xol day day jeexal yaram day um wërsëg day gàttal wërsëg waaw kon loolu benn la ci conséquence su dugg ci lu sa yoon nekkul baneen conséquence yi mooy mën naa tax ñu wax la lu la naqadi nag dugg lu sa yoon nekkul dey mën nga cee jële ñu wax la lu lay rusloo nag benn waaye dafa mës a seet si Abdullah ibnu Umar radiyallahu anhuma fekk Abdullah ibnu Umar dàll wa dagg mu koy daaxaat mu koy defaraat xam nga léeg-léeg nga sol dàll di dox ba si yàgg mu ne tëppet nga dem ca cordonnier ba mu ñawaatal la ko kolaatal la ko léeg-léeg mu daaj ca lu mel ne pont nga doxaat boo jegewul cordonnier nag léeg-léeg nga jël lu mel ne fil de fer mooy li ñuy wax fin di fer ñawaat dàll ya waaw kay waa ji nag dafa ñëw ci abdullah ibnu omar fekk ko moom abdullah ibnu omar dàll wa dagg mu koy mu koy defaraat di ko ñawaataka di ci takkaat ay fil de fer waaje ne ko yaa aba abdarrahman yaa aba abdirrahman law alqayta hada annacla wa axadta axara jadida fa qaala lahu naclii jaat bika haahuna aqbil ala xaajatik ka annahu yuaddibuhu bi qawli nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam min xusni islaami almar'i tarkuhu ma la yaaniih waaw waa ji dafa ñëw ci abdullah ibnu omar fekk seydina abdullah ibnu omar dàll wa dagg mu koy fil de feeraat di ko takkaat ak mu ne ko yow baayu abdurahman waaye yow daal daal yaa bëgg rek sa dàll wii dagg ngay fil de feer aka takkaat ak dàll ni muy yombe au ngay sonal sa bopp ci di ñëwaat aka takkaat te nga sànni dàll bii ca poubelle ba te nga jëndaat dàll bu yees ah Abdullahi ibnu Omar tontu waaje ne ko yow kon ndeke sa sama dàll yi moo la indi fii temps ni mu seere énergie ni mu seere nga doxe sa kër ba fii yàq temps bu bëri dépenser énergie bu bëri te dara indiwu la lu dul xool samay dàll yi may ñaw loolu dong moo tax nga bàyyi sa lépp ñëw ba fii moo ne am na lu la ëppal intere di xool sama dàll yii de waaw mel na ne abdullah ibnu omar dafa bëgg a yar waaji dane ko yow day boo jàngoon xadiis boobu yonente bi sallallahu alayhi wa di wax ne nit ki de balaa ak njulliteema rafet fawu mu maandu ci lu yoonam nekkul kon day dooma xas ci sama dàll yi may ñëwaat te nag bari na ku lay xas ci dàll yooyu ñëwaat naan la sànni ko ca ma te jëndi dàll bu yees te dàll bu yees bu doon jar cinq mille francs du la ci jox un franc laa la wax bu doon jar junni ab dërëm du la ko ci jox waaw le sëriñ Cheikh Tidiane Sy Al waxoon ne Seydi Hadj malik neewoon na sénégalais yi de jëruñ jëraluñ ma dindi sama sàkket wax ju siiw la waxaguma àggale bi sax waaye xam naa ñi may déglu ñu bëree bëri àggale nañ ko bu yàgg ndax wax jee siiw sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al dane maamam Cheikh Seydi Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu nee sénégalais yii de jëraluñ ma dindi samaw sàkket ñu ne ko waaw si lan moo tax sénégalais yi jëraluñ la dindi saw sàkket mu ne waaw li tax mooy dama dut leer ba xam suñ ma waxee di ma sikkalal sama sàkket naan ma fi nga teg sàkket yu baaxul fi nga teg sàkket yu baaxul dindi ko dindi ko ba ma topp seeni wax ba dindi ko ndax su ma ko bëggee delloowaat dinañ ma jàppale ba ma delloowaat ko wala de kon mën nañ laa wax wax ba nga teggi saw sàkket boo koy teggi sax man nañ laa jàppale na nga teggi ko waaye ay boo demee ba yëg ne sàkket wi munu fee ñàkk ba nga bëgg koo tegaat yàlla bu mu laaj nag dem ca àll ba taxaniwaat ñëw takkaat ay sàkket dañ lay seetaan de ndax teggi ba mooy gën a yomb takkaat teggi ba mooy gën a yomb tegaat Sénégal yi mën nañoo soowa soowa soow ba sumbuloo la fóot waaye duñ la fetele waa sa yére yu bëri yi doo ko fóot nga dem du say paan yu bëri teg ñu bàyyi la ngay fete yow doom waaw looloo tax nag mbir yi jara bàyyi xel lool la Abdullah ibn Omar euh, di nettali fii waaw nit ñi buñ lay xool dañ lay xool ci sa catu bopp xool sa yére yi xool tubéy ji ndax mbub meeg tubéy ji bokke na ndax me mbaxana mi nga sol ak mbub meeg tubay ji am na harmonie ndax dàll yi baax na ah léeg-léeg ñu ne ah sa yére yi de daa furi waaye yow mënu woon a xotti ci yu bees yi te xotti ba moom mën naa am ñaar fukki junni lay jar te ki na xotti li yére yu bees ab dërëm du la ko ci jox jeex na léeg nit di wax mel ni ku la yërëm ci sa situation fekk soit dalay ñaawal wala daa ñeme dugg ci lu yoonam nekkul moo tax dugg ci la sa yoon nekkul dina tax nag tabarkàlla tabarkàlla ñu wax la tontu bu lay rusloo xam nga ni kii ba muy wax Seydina Abdullah ibn Omar naan ko sa dàll yi ngay ñëwaat munoo dem jënd yu bees su ko leeroon ne Abdullah ibn Omar lam ko cee tegal mooy yaa am jot kon sa temps bi nga jël dépenser énergie bàyyi ko sa kër ba fii dara indiwu la lu dul di seetaan ni may ñawee samay dàll yu dagg temps boobu de xajoon na ci dem xalaat projet bu lay jariñ jeex na léeg-léeg dama naan jamono ji surtout vingt et unième siècle ak ni jot jot jafee ni jot jafe temps nit ñi ni ñu ñàkke jot man xanaa xamoo léeg-léeg ma romb nit duma la nuyu fekk du dama ñàkk ite de mais damay suuraaleen dañu nekk ci jamono ju nga xam ne kenn amatul jot waaw man nga occupé ci loo xam ne bu ma la bàyyee rek nga jël sa temps ca loola moo lay ëppal njariñ ma naan la asalaamualeykum aleykum salaam na nga def naka waa kër ga mu tax des saa suma rombee des fois boog su ma rombee nit ki mu occupé wu ci lu am importance si moom mën naa koo bañ a nuyu fekk lan la damay bañ a yàq temps wam du ñàkk itte de mbokk yi nañuy dugg ci lu suñu yoon nekk ndax kat duggul ci lu sa yoon nekkul dana jur nga yàq sa temps c lu ci lu la amalul njariñ waaw te nit nag balaa ak njulliteem a mat faaw muy moytu di dugg ci lu ko amalul njariñ njariñul àdduna walla njariñul diine nit ñu bari nag dañu bari jàmbat a ah, jamono ji liggéey dafa bari temps yombatul te man ci jaaxal mooy moom loolu ci wax ji rek lay yem maanaam nit ñi ni ñu agiré ak ni ñuy waxee par rapport ak bu ñuy jàmbat naan jamono ji moom kay jot yombatul ah moom kay bu ngeen di wax sax gàttal leen bu ñu la joxee kàddu ci mbooloo gàttalal ndax jot yombatul te nit ñi mënatuñ yenn toogaay yu yàgg yi ndax wératuñ te ki naan la jot yombul moom mooy dugg ci kër ma sàmba kër ma demba grand place bi ci koñ bi ba ci koñ ba baneen toog ci waa jàkk ja ba ñu tas mu dem ca ñey damier ba ñu tas ah mu dem ca ña ba ñey jouer pari foot ba ñu tas mu dem ca ña ca match ba ba ñu tas fu ne mu coow fa werante fa te buñ doon wax waxtaanu diine wala waxtaanu xam-xam mu naan gàttal leen ndax jot yombatul jot yombatul amuñu jotu déglu xam-xam wala lu am njariñ waaye am nañ jotu nag moom dugg ci détail wala gëstu loo xam ne vie privée nit la amuñuy jot amuñuy jot te foo toll ngay gëstu rek incohérence boobu xaw ma lu koy justifier les paradox sociaux waaw société bi dafa am ay tanaaqudoot dañuy wax ki naan la man kay aw ma jot aw ma jot da ngay teg ne moom doo ko gis fu dul ca place ba muy liggéeyee ak këram waaye moom mooy tala dem ca ngénte ya ceet ya anniversaire ya grand place jumaa fa ñuy defee pari foot seetaan match ya jotaay ba ca koñ ba fa ñuy dam yee moom daal moom daal doy na waar hmm? te moo énergie bi muy dépensé ak temps bi muy yàq mënoon na ko jël nag concentré wu ci projet bu nga xam ne daf koy jural njariñ jural ko famille jural ko société am waaye araam du ko def mbokk yi kon xadiis bii daal muy bokk na ci li ñuy rafetale suñu diine maandu ci lu suñu yoon nekkul bu ñu ko jëfe jëfe woon danañu jariñu waaye buñ ko wanee ginnaaw rek perte nag waaw ku ñu wax ibnu rajab ibnu rajab dafa indi commentaire bu am solo ci xadiis bi mooy wa mooy waxam jamu wax ni wa hada al xadis yadullu ala anna tarka ma la yaani al mar'a min xusni islaamihi fa ida taraka ma la yaaniih wa faala ma yaaniihi kullahu faqad kamula xusnu islaamih wa qad jaat al axaadiisu bi fadli man xasuna islaamuhu wa annahu tudaacafu xasanaatuhu wa tukaffaru sayi'aatuhu والظاهر أن كثرة المضاعفة تكون بحسب حسن الإسلام Ibnu Rajab commentaire am bi am na solo de nee na xadis bi daal liñ ciy jànge mooy nit ki su fekkee dafa bëgg a rafetal diineem faaw mu maandu ci lu yoonam nekkul ñu ne ko waaw maandu ci lu suñu yoon nekkul lu muy jariñ mu ne képp ko am chance maandu ci lu yoonam nekkul lépp lu muy def wala mu koy wax mu natt ko ba gis ne yoonam a nga ca loola mu soog koy def wala mu soog di ko wax kooku dey islaamam su doon yére la fóot na ko ba mu set mu gome ko paase ko ba mu rafet waaw ndax nee na xadis yi nga xam ne ñooy waxtaane ci ngëneelu islaam ju rafet yu ci bëree bëri dañuy wax ne képp ku sa lislaam rafet rek yàlla dina la fulal dina la fulal say tuyaaba ful mooy dana ko multiplier waaye dana la faral say bàkkaar képp ku góor-góorlu ba rafetal say sa lislaam képp ku góor-góorlu ba rafetal sa lislaam yàlla fulal la say tuyaaba faral la say bàkkaar ful ak fol wala ful ak far ah te nag nit ñi ni ñuy wuutee ci degré islaam bu rafet noonu lañuy ñuy ci degré bi leen yàlla di fulale seeni tuyaaba ak degré bi leen yàlla di farale seeni bàkkaar ful ak far ful ay tuyaaba far ay bàkkaar waaw kon nañu xam ne jullit yàlla dina ko évaluer su fekkee dafa nekk ku curieux ku bañ kumpa la curiosité waaw diw diw diw fuduli yu la ndax lan dafa bañ kumpa fu mu toll mi ngi gëstu di lunjutu mu jaral ko lu ne di wax lu yoonam nekkul waaw maa ngi ko doon wax gisoo ci coupe du monde bi bi muy soog di commencer Sénégal toogagul ñépp ay expert lañ woon ci football ba ci jigéen ñi nga xam ne seen xam-xam weesuwu lu dul togg ceebu jën wala suppu kànje maanaam waañ war mooy seen xam-xam ak sañse yematuñ ca waañ wa ak sañse waaye ñu ngi naan ah moom kay moom Edouard Mendy ni mu aayee ah waaw moom kay Sadio Mané ni mu mënee dugal but te Sadio Mané sax ñëwal ci coupe du monde deux mille vingt deux bi bu Qatar bi waaye dañ ko cay tuddaale kat waaw saajo maane kay Edouard Mendy kay waaw Bamba Dieng kay. waaw Aliou Cissé kay ni mu xamee coaching nangam nangam ay jigéen fu ñu toll nag dugalal la téeméeri stati ak fukk ak juróom te bi Sénégal gagné bi Sénégal toogee ñu éliminé ko coupe du monde bi jeexagul de waaye ñoom jeexal nañ ko bu yàgg et pourtant Sénégal ma nga toogee ci huitième de finale waaye ñu ci bëree bëri ñu doon riirandoo tey quart de final ba seetaanuñ ko demi finale ba seetaanuñ ko final ba itam noonu duñ ca seetaan dara. waaye ba Sénégal toogagul nag ñépp a ngi jaay xam-xam Aliou Cissé lii Edouard Mendy lii ah Bamba lii ah Idrissa Gana Gueye nangam nangam moo tax ñun mën nañu dugg ci lu suñu yoon nekkul ku xam di statut ku xamul di statut moo tax ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wasallam lii may wax Abu Ya'la moo ko solo ak Bayhaqi dafa am benn waaye bu ñu rayoon ci toolu xare am jigéen bu jooya jooy ba sëngéem ne ay waay maañee kii moom de dee na ci toolu xare kon shahid la yonent bi ne ko yow day maandu kan moo la wax ne shahid la yow kii ngay seedeel ne martyr de l'islam la est-ce que da dugg ci xolam ba xam ne shahid la ne ko kii mën naa am daana wax lu yoonam nekkul mën naa am da daan nay ci alalam ah te nit su fekkee bi ngay dundu da ngay yomboona wax lu sa yoon nekkul wala ngay dugg ci lu sa yoon nekkul man ngaa dee ci toolu xare doon défendre cause l'islam te doo am dara darajey shahid ndax la la koy xaj mooy wax ga nga daan wax lu sa yoon nekkul wala dugg gi nga daan dugg ci lu sa yoon nekkul wala nay gi nga doon nay ci sa alal rawatina alalu jàmbur seetal ma loolu te waa ji ci toolu xare la deewee te da doon défendre cause l'islam mais ndaw si bi mu jooyee rek bëgg ne waa ji shahid na yonent bi ne ko ah tey ci de amul dara lu la mën a garantil ne moom shahid la waaw ndax dëgg la shahid mooy ku dee ci toolu xare doon jàmmaarloog yéefar ngir di yëkkati lislaam dëgg la kii da doon jàmmaarloog ay ay yéefar di xeex ngir bëgg a défendre cause l'islam waaye na fekk nag xolam bi sedd ak jëfam set ba daawul dugg ci lu yoonam nekkul daawul wax lu yoonam nekkul mais su daan dox lu yoonam nekkul wala mu koy wax wala mu koy jëfe même su deewee ci toolu xare doon défendre cause lislaam dara mënulaa garantil ne shahid la <laughs> kon ñun li ñuy wax lu suñu yoon nekkul bëri na kon li ñuy wax lu ñu leerul bëri na ñun dañuy jaay xam-xam ba bëgg a gën a xam nit ki boppam waaw man léeg-léeg dinaa romb xale ma yorum mburu di lekk xale bi ñaan ma damay bañ ndax dama dama dul leer ba xam xale bii xale bi moom innocent la xamul dara mais est-ce que su ma daggoon ci mburu mi jox ko est-ce que neex na yaayam wala papaam te su fekkee su ma daggee ci mburu mi jox xale bi di jaay yërmande ko mbaax loola du neex papaam mën na ma faa fekk toroxal ma di yaayam mën na mën na ma faa fekk toroxal ma di ne ma yow sama doom ji ngay jox lii nag ah xamal ne lu ko dal yow la de te effectivement bu ko dal dara daloon tamit <laughs> fekk yaa ko may mburu wala gerte caaf wala yaa ko may benn gato wala genre bu ko dara méttee yow lañuy wax léeg-léeg damay nekk ci kër ñuy xuloo ba ne saay coow boo nekkee ci kër nekk gan da ngay teey waaw nga nekk gan ñu dalal la sa néeg nga bëgg ñuy xuloo rek nga daal di génn ne lu ngeen jotee man ngaa génn rek ñu wax la loola rusloo waaw am na dëkk bu ma nekkoon dañu amoon habitude comme nit ñi ni ñu wuutee ci ay tempérament ak i comportement ak yooyu ak culture yi ni mu uutee dëkk ba même bu ñuy kaf sax dañuy mel ne ku ñu kuy xuloo ndax bu ñu kaf dañ koy waxee ci ton wu xuloo léeg damay nekk sama néeg ñu coow coow yu metti ba dara duma dese lu dul génn ngir àtte waaye yàlla may na ma chance nag musuma jéem a génn àtte ndax man dama téye ci yooyu léeg-léeg sax nga jàpp ne man dama soxor wala yooyu fekk déedéet bañ ku ma rusloo rek am benn bis nag waa joo xam ne ca dëkk ba la dëkk yàlla dogal na ku ubbeeku la muy waxtaan ak man bañ yabante xam nga nit am na nu ngeen di yabantee rek léegi da ngeen di sañ a waxante yu bëri benn jour maa moom ñu wéet mu ne ko lan moo tax léeg yéen bu ngeen di wax da ngeen di wax ca kaw mel ne luy xuloo mu ne ma loolu suñu habitude la rek ma ne ko ah man de léeg-léeg damay nekk ci néeg bi sax léeg-léeg ton bi ngeen di waxee damay tiital ba ma naan ah waaye ñii mbaa duñ mu ne ma loo ko dégg-dégg nag bu mu yàgg-yàgg ba nga génn sa néeg bi waaw ndax man ngay génn di àtteb xuloo rek ñu jàppee la seytaane ndax xuloo wuñ noonu la ñuy waxee man ne ko jërëjëf jërëjëf ci leeral gi lu jar a bàyyi xel la waaw léeg-léeg ma gis kuy jàppoo dara kuy jàppoo sàkket wala muy jàppoo ab lal wala armoire ci kër dinaa am yéene jàppale ko da waaye su ma waxul kaay jàppale ma duma ko jàppale mu ko ndax ginnaaw lal ba da koy jàpp di ko dugal ci néegam wala armoire ba da koy dugal ci néegam walla faneen fu ruqee bu ma waxul kaay bu ma jékki-jékkee jóg di ko jàppale mën naa am dama bëgg dañ kumpa néegam di waaye nag damay xaar ba ne ma ah doo ñëw jàppale ma soog boobaa nag may soog a ñëw waaw ndax itam wóorul dañuy wax ne bañ kumpa ma dafay yàq ay relation nag dafay yàq ay relation bu baax a baax a baax a baax waaw ndax mën nga dugg ci lu sa yoon nekkul ba envahir espace privé nit ki mu xas la xas woo xam ne bu doon bëccëg la doo tala añ bu doon ngoon la doo tala reer bu doon fajar la doo tala ndékki waaye itam di moytu di poser yenn question yi nit ki bul ko laaj yenn question yu xóot yi naan ko ñaata kër nga am ak ñaata soxna nga amak am na koy bëgganteel ak ndax am nga otoog looy fayeeku sa salaire ñaata la yooyu yëpp kenn du ko laaj nit sa salaire ñaata la ndax am ngay borak sa ravitaillement num toll ak say soxnaak say doom lu ngeen di sóor ci kër yi question yi kenn du ko laaj waaw daa mel ni gis naa nga dugal am xar sa kër yooyu kenn du ko laaj waaye wax dëgg yàlla laaj yu mel nii soo koy laaj foo doon gan sax bu yàggee nga soof leen ñépp di yàkkamti nga ñibbi gan goo xam ne boo xëyee balaa ngoon a jot nga dugg ci néeg yépp dugg ca waañ wa kun duggi marché nga xam lan la indi ah ba xam dépense bi da ko leb wala lebu ko sax danga nga koy gëstu gan guy def loolu bu yàggee foo gane ñaari fan balaa man ñetti fan ñépp yàkkamti nga ñibbi moo tax nag nañuy ñuy jëfe min xusni islaamil mar'i tarkuhu maa laa yaanihi rek nag waaw nañu rafetale suñu lislaam ci lan ci maandu ci lu suñu yoon nekkul bari na ay xuloo aki i këréel ak i dispute wala tiraillement yoo xam ne bañ kumpa rek a koy waral bañ kumpa ba ñépp mere la ñépp di la daw ñépp di xuloo gi yow bañ kumpa daal ak curiosité lenn doy na ci curiosité intellectuelle muy nga bañ kumpa ci xam-xam bëgg di gëstu di yokk ci histoire géographie di yokk ci mathématique di yokk ci philosophie di yokk ci médecine di yokk ci xam-xam yu am njariñ yi waaye nag sénégalais moom xamul ko am curiosité intellectuelle fi ne boo ñëwee ci ab gox wala benn dëkk di leen laaj ba nga xam seen culture seen histoire seen vie sociale booy laaj lu bëri jotaay boo ñëwati ñu ne tëj leen seen làmmiñ de moytu leen diw de comme ab journaliste lu mu la laaj rek laaj la la neen fekk yow dangay laaj ngir bëgg am xam-xam foofu la tubaab bi rawee tubaab bi day dem di gëstu. di def tourisme ah di gëstu di laajte waaye ñun sénégalais ki suñ biir ñun africain ki suñ biir bu la nit ki dee laaj rek ah waaw kan mooy seen maam moom lan la dund fan ngeen dëkke woon lan mooy seeni gent pour bëgg a xam histoire ak civilisation wu dëkk dañ naan moom de comme journaliste wala moom de espion la day def espionnage benn paa wax na ma ko ndeysaan ko xoromu dafa ñëw ñuy waxtaan waxtaan bu am solo mu naan ma man de mag laa waaye du duma toog moo ne sama doom yépp a ngi liggéey saa yu ne dañu xuloog man naan ma paa tee ngaa toog ñun mën nañ laa yor ma ne hee paa bi nee na ma wax sama doom yi ne lu ngeen ma yor yor du weesu lu dul boolub añ boolu reer boolu ndékki boolu añ boolu reer mburum ndékkee kaasu kafe ca ndékki la waaye ay soxla moom añ ak reer ak ndékkee ci gën a tuuti te bu ngeen ma toog toogloo dina am soxla yoo xam ne yéen du ngeen ma ko mën a fajal ndax tane wu leen ma da ngeen am ay soxnaa doom kon bàyyi leen ma rek may génn di doxantuy liggéey di defar sama yaram léeg-léeg ma am lu ma def sama poche bu ma amul lu ma leen jox itam du ma leen laaj dara paa bi génn ndeysaan di liggéey waaye ñuy waxtaan mu ne ma gis nga li may liggéey sama marchandise yi xam naa marchandise yam doon mais du ma ko wax mu ne ma fi ma koy gën a jaayee mooy service yi ay police gendarmerie impôt et domaine trésor genre genre service yooyu mu ne waaye bu ma duggee police ni may waxtaanee ñoom affection wala affinité bi am wala proximité bi am sama digganteeg policier yi damay ñëw rek ñu ma eh paa nandite ñëw na paa bi kay ana bagage yi nag loo indeeti ma wan leen yi ma indi ci yi ñuy soxla ñu jënd nee na kaf googu may kaf euh, policier yi climat de paix boobu dialogue boobu climat de dialogue boobu muy affinité beeg proximité bi paa bi nee na ma tax na ba ñu bëree bëri tuñ ma dañu jàpp ne a ah, espion laa damay gëstul policier yi te araam paa bi ne ma sàllaaw de ñi am ci man confiance de bareetul ñu bëri wóolootuñ ma de waaw jotaay bu ma ñëw rek ñu ne jóg leen paa diw ñëw na wala noppi leen de wala wax leen lu ngeen xam de wala teg leen seen làmmiñ de te pourtant amu leen lu leen leer ci ne man espion la policier yi li tax ma miinanteeg ñoom samay client lañ te client nag boo bëggee mu jënd sa marchandise faaw nga neex deret waaye neex deret googu may neex deret di kaf ak policier yi di ree ak ñoom jàpp nañ ne maay feeñal sàcc yeeg toxkatu yàmbaa yeeg ñiy cambriolé yenn magasin yeeg pharmacie yeeg genre yu mel noonu pour wax la ne la nit ñi dañuy ñàkk a maandu ci su ci lu seen yéen nekkul dañuy ñàkk a ci lu seen yéen nekku ci lu seen yoon nekkul ci wax ak ci jëf ba ci xalaat dama ne nit ñi dañuy ñàkk a ci lu seen yoon nekkul ci wax ak jëf ak xalaat parce que paa kay li tax ñu ñàkk a ci moom ci xalaat la rek dañ koo jortal ne moom espion la fekk moom ni muy neex neex deret dafa bëgg a téye ay client moom rek hmm? waaye sénégalais boo nekkee ku am euh, ni ñu koy waxee ti lan curiosité intellectuelle dañ naan moom de espion la maandu leen ci moom de tey leen ci moom de waaw moo tax kenn mënu fee gëstu xam-xam nag waaw ndax ko tey ko enregistré koo ne ah man de damaa bëggoon nga waxal ma ci histoire sàngam ndax may nga ma ma enregistré ko damaa bëgg nga won ma ay trace historique ndax may nga ma ma filmer ko bu yàggee day jàpp ne yow espion nga loolu nag damay jàpp ne ñàkk limité wu ci xam-xam la waaw ñun ñàkk guñ ñàkk am curiosité intellectuelle moo tax ba euh, ñu yomba dugg ci lu suñu yéen nekkul ko am curiosité intellectuelle nekk gëstukat nag dañuy jàpp ne kii journaliste la te journaliste kay lu baax la journalisme da ngay informer nit ñi mais eh, bu ñu nee journaliste mooy yow diaboliser nañ la stigmatiser nañ la dañuy jàpp ne journaliste mooy koo xam ne day feeñal nit ki ba fu mu ñëw rek ñëpp a war a daw rawatina nag bu ñu nee espion la moom rey nañ la ba nga dee niwit mbokki boroom xam-xam yi wax nañ ci conséquence su ñàkk a dugg ci li sa yoon nekkul nee na day waral yàlla mere jaam bi waaw nee nañ yàlla kum mere rek dalay nattoo ngay dugg ci lu sa lu sa yoon nekkul bu ko defee ñu lay rusloo yàlla kum mere dalay nattoo ngay dugg ci lu sa yoon nekkul bu ko defee ñu lay rusloo waaye yàlla ku mu bëgg nag dalay xéewale ngay maandu ci lu sa yoon nekkul waaw dugg lu sa yoon nekkul ku ko yàlla nattoo mooy foo toll yaa ngi dugg ci vie privée nit ñi seen espace privé lan lañu def lu ñuy lekk lu ñuy naan waaw luy seen métier wala yu mel noonu ndeysaan dafa am waaju ñëw ca soxaabi bu mag boobu ñuy wax abu dujaana fekk abu dujaana dafa feebar waaw waa ne ko waaw yaa ngi feebar ba noppi sa kanam gi di belli ku feebar nan la kanamam di bellee abu dujaana ne ko maa min amali cheyin awsaqu indi min isnatayni kuntu la atakallamu fi ma laa yaaniini wal uxra fa kaana qalbi lil muslimina salima waa ji dafa seet si abu dujaana fekk abu dujaana dafa feebar te ku feebar liñ doon séentu ci moom mooy kanamam dafa war a triste loolu mooy li logique waaye au contraire moom bi mu seet see abu dujaana malgré que dafa feebar waaye kanam gaa ngay belli leer naa nañi mu ne ko waaw yow nga feebar ba noppi sa kanam gi leere nii mu ne ko mu ne ko mu ne ko waaw luy sa secret feebar sa xar kanam di leer luy sa secret abu dujaana ne ko ñaari secret rek laa mu ne ko ban ban la mu ne ko benn bi mooy musuma fàttali ko fu ma waxee lu sama yoon nekkul waaw góor-góorlu naa ba maandu ci lu sama yoon nekkul muy benn ñaareel ba mooy sama xol bi tàggat naa ko ba yéene ci ñépp jàmm ñépp dama leen a ëmbal jàmm ci sama xol moo tax suma feebaree sax du feeñ ci man du ma benn signe d'angoisse wala de tres de tristesse wala signe de stress xasanul basri rahimahullah nee na min alaamati icraadillahi an ilabdi an yajcala shughlahu fi ma la yaanii waaw nee na ku yàlla abandonné dalay nattoo ngay dugg ci lu sa yoon nekkul xasanul basari nee am na benn màndarga bu may xàmmee ñi yàlla wan ginnaaw ñi yàlla abandonné benn signe rek laa leen di xàmmee ñu ne ko basri ban signe ngay xàmmee ñi yàlla abandonné mu ne dañuy ñemee dugg ci lu lu seen yoon nekkul imaam Malik ne laa yaflaxu rajulu xatta yatruka maa laa yaanihi wa yastaxila bi maa yaanihi nee balaa nit a texe faaw mu liggéey ba ñaar yi nekk ci moom muy lan moytoo dugg ci lu yoonam nekkul waaye lépp lu muy dugg mu natt ko ba gis ne yoonam a nga ca waaw moo tax yàlla ne ittaqullaha wa qulu qawlan sadida na ngeen ragal yàlla ta tàggat seen làmmiñ ci wax ju jub wax ne wa ida samiu laxwa aradu anhu wa qaalu lana acmaaluna wa lakum acmaalukum salaamun aleykum laa nabtagi ljaahiliin ina am na ñoo xam ne seen noppu sax munta supporter déglu wax yu seen yoon nekkul waaw saa yu seen yoon nekkul rëccee ba dugg ci seen noppu sax dañuy fexe ba fénatal camoufler dugg ci beneen débat waaw ah ku nekk ak sa jëf ku nekk ak sa bàmmeel kooku mooy seen slogan bi leen di muccal ci dugg lu seen yoon nekkul wala ñu koy wax waaw kon nag mbokk yi mi ngi noonu defe naa àdduna am nañu priorité hmm? àdduna am na am nañu priorité comme jot yombul soxla yi bëri na mais sañi suñu temps nañu ko passé ci lu ñu amal njariñ alaaxira itam moom dara du fa doy kon nag wax dëgg yàlla suñu temps nañu ko passé ci nag lu ñuy may tuyaaba ju ñuy rawale foofu la sëriñ Tuubaa waxoon ne wàññi leen tëddaay bi ndax bise ngi ñëw ku mu neex tëdd ku mu neexul tëdd xam naa sëriñ Tuubaa ma nga cay junj tëddaayu bàmmeel ba ginnaaw tëddaayu bàmmeel nag amul fu mu yem dafa yàgg bu ngeen bëggee mucc am na fu ci bàmmeel ngal la bu leen bari lu ngeen di yàq seen temps ci àdduna moo tax mu ne wàññi leen tëddaay bi de ndax bisa ngi ñëw kum neex tëdd kum neexul tëdd daal di bind ñetti dara muy dara dara dara dara ju njëkk ji Sëriñ Tuubaa ko firi nee na yàlla mii ko xam ci moom dara doo ko moy ci dara ndax lan ay dumaam xajul ci dara di dara ju ñaareel ji mooy àdduna mii ku xam ci moom dara doo ko dencal dara ndax dara du fi des dara ju ñetteel ji mooy àllaaxira mii ku xam ci moom dara doo ko jëfal dara ba di ko naw ndax dara du fa doy waaw wow kon defe naa ko am ay projet ci àdduna ak i ambition yu mu bëgg a du tal a dugg ci lu yoonam nekkul ku bëgg àjjana ëllëg du tal a dugg ci lu yoonam nekkul mbokk yi kon lu dul doyloo ci am doyloo ko ñu ngi leen di tàggoo fii di ñaax ñëpp ñu abonné wu ci chaîne YouTube bii di yaatal xel ci di bàyyi xel waxtaan yi di commenter ndax fa la njëriñ ya di gën yaatoo aqulu qawli hada wa astaghfiru allaha li wa lakum wa li saa'iri almuslimin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh